ci seen euh, yenn prestation yi ñu ngi wax ni que ñun ñoo ngi tudd Calmise Mac Calmise mhm. ñoo ngi nekk à jëppal euh, côté terme Liberté cinq boo yegg see ba foofu bu ñu woowee incha allah rabi di nga ñu euh, soit ñu envoyé sur localisation ba ñu indiqué la carrément fa la nekkee soriwul à terme Liberté 5 juste si jëppal 3 bi la nekkee. Mhm. ñoo ñoo ngi def confection tenue tradi moderne tenue africaine match chemise africaine. et tamit ñu leen jox information que voilà chaque chaque semaine chaque chaque vendredi soir la ñuy génne euh, collection chemise bu bees ou prêt à porter bu bees chaque semaine lay am collection bi génn ci boutique bi ñoo ngi tamit à travers les plateformes TikTok Instagram euh, Facebook euh, WhatsApp aussi surtout parce que yenn promotion yi à travers WhatsApp lay génne. Mhm. léegi ku ñu bëgg joindre la ñuy joindre à travers le 77 306 86 87. ou bien 76 152 74 16 ou bien 77 687 15 21 voilà di remercier tamit samay parents maman Kalmi monsieur Sène professeur Sène ak sama sama mère maman euh, mère Nafiba ak waa Rufisque yëpp ak sama copain yi ma ànd ci plateau bi ak képp koo xam ne yaa ngi gis ou bien yaa ngi may xamee à travers euh, euh, la TFM merci encore une fois et. jërëjëf kontaan nañu trop merci merci waa Calmise euh, euh, ci euh, seen seen liggéey bala ma demaat ci orchestre bi sax mais Alpha mais pas yi pas yi orchestre Baobab bi mhm. mais ba léegi dañuy jam leer yu graw ah mais Babacar maa ngi remercier Pape Cissé ak orchestre bi mhm. ndax bu doon bu doon ci làmb ji dañuy wax ne ay champion rek lañ dajale ñoo ne ci kaw scène bi mhm. man xaw ma dama gëj a jàkkaarloog orchestre muy tey daal li ma yëg gëj naa ko yëg ndax xam nga di wayal nit ji rek tey damaa toog rek ñoom biram ak sama gaay yi di ma bëgg a gaañ mhm. ñii nag dañ leen di gërëm ci kanamu Sénégal yëpp ndax nga ànd ak ay waajur yoo xam ne ñoom ñoo sosoon groupe bi ñun bu ñu defee tey tour du monde ay yoon ci seen barke lañ ko defee benn waaye laaj na ma secret Baobab lu tax orchestre bi di gudd fan nii ma ne ko gannaaw ndimalu yàlla gis naa fa lu raar ci orchestre muy Ndiouga Dieng mu daga kwaate ñi sosoon orchestre bi ak man ak Papino ñi ñëw barki démb ñoo yem salaire ña ko sosoon avant ñuy juddu ak ñun ñii ñoo yem même salaire xam nga loolu transparence bu mel noonu ak lu nay ku ne lépp ñëpp nekk ci mën na gudd fan. ils sont organisés sànq maa ngi lay wax. ci jam leer bi. waaye parce que euh, voilà il. Euh, boobu def ci bokk ci secret yi kenn lekku ci àqu kenn euh, staff bi toog nii ci kaw seen bi man palaasu Ndiouga Dieng laa toogee mënoon naa toog fële comme papino comme doom comme yëpp dañ na ma sa papa li mu doon def nga di ko def lu ñuy def dañuy toog wax ak man te ñu te ñooy samay papa. Mm. décision bu am ci orchestre bi dañ ma war a ma alpha loo ci xam kon ñii. maa ngi ñaan ngeen tàcc suñu suñu waajur yi bu baax a baax baax a baax maa ngi nuyu suma sœur Aminta ak Medoune mu ndaw di ko nuyu ci teewaayam di nuyu famille Baobab yëpp di leen wax ne orchestre bi institution la comme ni ko xale yi di waxee man dama ne woon damay jaar rek jàll Babacar sànq dama yeggalewul woon mais gis bi ma bi ma demee àll l'étranger ak groupe bii ci laa jébbalu baobab te bàyyiwuma sama carrière de mais ci laa xam ne amaat fii renommée bu am bi baobab am man du fi xaj ma ko liggéey man à travers baobab rek laa mën a jàkkaarlool jàkkaarloog àddina wane sama talent bu doon sama mbalax mii du ma fi génn avant ñoom nag tukki naa mais seen yi ma doon def bi ma ànd ak baobab bokkul ak yi baobab def parce que seen yi ñuy def boo fa gisul Youssou Ndour ñu ne la jaar na fi daaw wala daaw jéeg Salif Keita nga fay dégg tout récemment ñoo bokk seen ñu bokk ci ñu sagal Sénégal may jàllale message à travers émission bi Babacar ndax ñëpp ñooy seetaan TFM hmm. président de la république maa jàkkaarloog moom fële ca grand théâtre ne ko ñu toll ni baaw bab ak li ñuy représenté ak li ñuy defal Sénégal ñaaw na ñu taxaw ci ambassade yi nañ leen honoré jox leen ay passeport service wala ay passeport diplomate parce que ñii ñooy ba barki démb Ndiaye trois mois la def ci àll bi ay 35 pays ngay def presque tout du monde da ngay dem ci dëkk yi ba pare ñu ne fu ngeen dëkk ñu ne Sénégal fuy Sénégal ñu dem di xool carte monde bi pour xam Sénégal bari na nit ñu weex ñu ñëw ci Sénégal orchestre Baobab ak musique am moo leen andi wala Youssou Ndour wala keneen nañu sargal ñi ñu fi newoon bëgg ñu recevoir leen recevoir nañ leen ci jamonoy Abdou juuf man sa papa bi ñu koy tappal euh, l'ordre euh, l'ordre national du man mii la yóbbu maa gënoon nekk xale ci palais bi. ca laa ko gëj a gisee xanaa président Macky Sall du toog ba jóge fii te du sargal waa Baobab te wax naa ko ko devant tout le monde ca biennale ba ouverture bi man lañ jox kàddu gi ma ne ko président orchestre waa Baobab mooy orchestre bi mag ci réew mi. Mhm. am na 50 ans ñuy ay kilifa di def loo xam ne bi leen di jox Grammy Awards sa Amérique kenn yëgu ko orchestre bi donc dañu nekk ay nit ñu modeste ñun xale yi sax ñun ñooy génn affaire bi di ko wane ci ci internet bi bi ñu ñëwee mais Baobab toj nañu àdduna bi. toj nañu àdduna bi ñun festival bu ñu dem dañ naan Youssou Ndour jaar na fi daaw ñu jug ñun ñëpp kontaan wala defoon na fi nangam festival yooyu la orchestre Baobab topp di jaay culture sénégalaise ñu nekk ay ambassadeur pire maa ngi koy ñaan Abdou Diouf li mu defoon bu ko Ablaye Wade deful xëy na yàllaa ko dogal mais moom président Macky Sall li ko fi dese na honoré waa Baobab. merci Alpha. jërëjëf euh, euh, alalu ñëpp la. Euh, di fàttali itam ne euh, ñi ñu àndal tey euh, di groupe bi nga xam ni moo ñuy baaxee wayu baobab yi biñ tàmbaleeg léegi ñoom di waa African Stars Orchestra mën ko képp ko am comme cérémonie wala loo mënti xew la ci ci Sénégal mën leen woo ñu defal li nga bëgg ci ci loisir ci musique ku leen bëgg a jot rek wooteel ci 77 650 13 58 alors on, on poursuit euh, parce que léegi ñu jeexal euh, ci euh, euh, delloo njukkal ba tey ñi nga xam ni ñoom ñoo sos orchestre Baobab Issa Cissokho saxophoniste xam ngeen ko yéen ñëpp ndax mook Thierno mi am na jamono sax ñu ngi woon support super rakkam mi ngi nii toog di Moussa ñu ñu déglu euh, seen mag yéen ñëpp Mamadou Mamadou Cissokho euh, témoignage am ñu ñu ñëwaat. moom moo foot formé woon Baobab nekk chef d'orchestre bi lay mbuub ñoom ci woon ñii ñëpp jaar nañu Baobab boobu nag moo fa nekkoon wax dëgg yàlla waaw ndax moom orchestre yu bëri bokk ni joué na soose jaar nax moom même même kër kase jaar na fa bu yuusu di ñëw di joué làkk di jàng fa la ko doon fekk loolu yàgg na Baobab nekkoon na Rigile Ferry ci sous-sol bi ñoom Ousmane Diagne ñoom ñoo ko moomoon ak Adrien Senghor ñoo ko ibbi woon ñu nga fa foofu restaurant la woon ci suuf fa dancing la woon ñëpp dañ fa doon dem après Baobab y a eu quelques problèmes problèmes yi sax d'ailleurs bon saa a commencé quand sama maam bu góor bi mu gaañoo donc comme il était très affectif ci ci sama maam ça l'a un peu choqué, secoué un tout petit peu. Donc il a mis du temps après pour reprendre la musique. Donc euh, après le rejoindre Super Étoile, fait que fait Tcherno, Tcherno Kouyaté, qui est son frère parce que euh, ñoom ñaar seen ñaar yaay ñoo bokk bok ndek bay. Et Tcherno a grandi dans l'antichambre de Issa, Kër Issa le Dekoun. Issa presque moko yar bi Tcherno avait 12 ans. donc moo tax au niveau du super étoile ñu bëri dañ doon laajte complicité bi amoon section vent bi ñoom ñaar c'est parce que dañoo juddoo ci benn kër yaroo fa màggee fa donc dañu dañoo déggoo woon quoi donc euh, bi mu jógee super étoile aussi ci la ñu créé waat reconstituer Baobab donc euh, ci lañ ko woowee ci la ñëwaatee accompagner leen aussi ba ni mu génnee àdduna donc en gros carrière u Issa c'était sa liggéeyam daf ko te nag muy nit koo xam ne nit ku baax la woon ku oyof boo ko gisee nii muy dem sax doo ki waaye dafa oyof baax lu am nag bokk ko fi nit ñi ñëpp la ko bokkal daf ko njëkkee nag ci ay waajuram soor nag kay defal ay ay ñu mu xam ba léegi gën tàpp fii ñu bëri dañ koy jooy ndax dafa doon am lu mu doon defanteex ñoom ñun sax duñ ko xam Euh, si Cissokho euh, Moussa yow yaay rakkam euh, témoignage yi loo ci yokk ak yow ni mu la dugalee ci affaire yi. ñun nag ba ñu nekkee kër gi boo xoolee kër gi kër ngéwél la ñun suñu kër ay percussion balafon ay jëmbe lépp moo fa nekkoon. Hmm. dañ jouer am suñu mag bi ñuy naan tuntu. su kooku la kii jël moo ñu uufanul ñëpp ñu nekk si bale yi di def ay di jouer par ay asiko yëpp congoman yooyu yëpp dañ ko doon jouer man ma nekkoon bale national le premier ballet national du Sénégal bi Mountaga mm-hmm. dama ko daan jël ñi dem répétition groupe bi partout dem na ko fu ma dem dañuy ànd Thierno Mountaga moom daawuñu woon tàggoo ñun suñu biir mm-hmm. ñooy ànd di dem léeg bu ñu làqoo dem joué ñu ne a ah, sa rakk yaa ngi joué fële de bu ñu ñëwee ñu ne ah yéen nekkoon fee ñu ne déedéet du ñun de. Mm-hmm. bu ko defee ñu dellu si ñëw toog a ah, noonu la ñu nekkee nag di dem di dem di dem ah ba di jur moment nag man ma bàyyi leen fi nag daal di dem bitim réew. Mm-hmm. tu vois. gars yi nag waaw ñu fexe ba xëccaat man léegi. yow yaa ko. maa ko ne mu ñibbisi yaay magam. waaw maa <laughs> seen yaay ñoo bokk ndey ak baay. waaw mi ngi noonu. Euh, est-ce que euh, xeet wi Sissoko gi ak euh, kuyaata gi am na couleur bu mu def si ci baobab am déet Thierno. Sissoko bi ak Kouyaté bi. Mhm. mais sauf que ngeen tuuti. waaw waaw c'est une même famille. Mhm. xam nga du côté de son père. Sissoko man sama côté Papa Kouyaté la. mais suñu ñaari bàyyi ay doo ay ay ay ay doomu nijaay la ak doomu kii ah. Mhm. ay nijaayante la ñu quoi. Mhm. léegi suñu ñaari yaay bokk ndey ak bàyyi. donc bon c' une famille liée. loolu la am na côté sama papa ak papam dañu am ay lien de parenté yu dëgër. booleeg sama yaay ak yaayam bokk ndey ak baay ñun suñu yaay teel a gaañu yaayam uuf moo tax foofu la ñu dëkkoon xamuñu kenn ñoom la xam. on va rendre à, hommage à Issa. Ouais. en musique sur scène. Mm. ak euh, euh, sama gars yi. et on va interpréter d'ailleurs c'est une chanson de Ndiouga Dieng euh, werante sëriñ. Mm. aywa. yes morceau bi nag dinaa ci invité suma mag suma xarit muy Alpha Dieng lii moom sa papa moo tax mu bëgg rek après nga ñëw fekk ñu ci géew bi coo ko koo bëgg a invité. sama grand sama maître xam naa du ma la mën a woo yaa ak Moussa yëpp waaye yow Mountaga ñëwal rek maa <laughs> la euh, maa ngi nuyu sama papa yu fi nekk yëpp di remercier waa TFM di kontaan papa Thierno mag moom euh, dañu yàgg saan xamante woon ci groupe démb tey maa ngi koy remercier bu baax jàng naa si ñoom lu bëri di remercier Annette moo ma habillé tey ci kaw ba ci suuf remercier aussi Margo Fall Fashion si sama bopp merci beaucoup. waaw ma dolli ci nag di leen xamal ni orchestre bi pare na pour jouer dinañ def dîner de gala dinañ def euh, soirée dinañ def concert. di leen xamal ni rek. team building ñoom ah, ñoo nekk ci ginnaaw. affaire côté organisation beg yooyu ñu leen di xamal daal orchestre bi libre na ku ko soxla soirée wala dîner wala lu si doon rek animation pare nañ taxaw yaa jëf acagaay alpa ñëwal damaa gëj a dégg baat bi ñëwal rek jeng saala ñëwal tàccu leen alpha Magi Momo Dieng Ter Mountaga aca mais ani Papino yes ah sunu tonto mu moom it ñëw na ngeen tàccul ko waay orchestre Baw Pap ah Papino yee maestro ngi kontaan bu baax bàyyi leen di werante naa maa la gën sëriñ maa la gën ki la gën a gën gën laa topp ndigaloo gënu la aaw demin bàyyi di werante naa lu tax maa la gën sëriñ maa la gën ki la gën a gën sidi bi fi la teg ci yoonu siraatal mustaqim amoo fayam mënoo ko fay li ñu war kay xanaa mooy ñu ñaanal leen fonk seen di ñooñ leen di werante lu tax maa la gën sëriñ maa la gën di la laa ko bu digaloo kàttanu laa. waaw Papa Malick ibnu xalifatu Babacar Si ñaanal na ma. yal na yàlla yokk baatu waaram njabootam wéral jërëm. bàyyi leen di wérante naan maa la gën sëriñ maa la gën ki la gën a gëm gën laa topp ndigaloo gën faamaatu aram njabootam wéral jërëm bàyyi leen di wérante naan lu tax maa la gën sëriñ maa la gën ki la gën a gëm gën laa topp digaloo gën laa waaw Papa Malick ibnu xalifatu Abacar Si ñaanal na ko yàlla yàlla yokk faamaatu aram njabootam wéral yërëm bàyyi leen di werante naa lu tax maa gën sëriñ maa gën ki la gën a gën nga laa doo ko digaloo gën laaw demee suñu Sénégal mel ni réewu dër bu ñu dem ba nu waaw waaw yéen sala melody Alaaji Njuuga Jëng maa jëli góor góor yaa sàmb góor góor ku ma bar ñi góor góor góor góor ma góor sax la dangaan du sa maam la ñu boole jege buur këru xasata la bàyyi bala si di bee Diallo bàyyi Aminata Diallo waaw waaw Birame Dieng yaa ngi way ñu baax baax lool Ridi Gomis Abdoulaye bu Cun Balago Seeg Mariasi may sa may sa bige ajum naara mi ca ndoo njar ga dem ba ca la mbaay ji noo jiit Birame yaa ma yëngal daal ndakaaru di jàmmi Sénégal seexu cana bañaan na fi Sénégal du dem ba seen naaw yow yow du seen di ñooñ bàyyi leen di werante naa lu tax maa la gën sëriñ maa la gën ki la gën a gëm gën laa topp ndigaloo gën laa waaw Papa Malick ibnu Xalifatu Babacar Si ñaanal na ko yàlla yàlla yokk babaat waram jabootam bégal sala bàyyi leen di werante naa maa la gën sëriñ maa la gën ki la gën a gëm gën laa topp ndigaloo gënu la am yesaay waaw waaw waay tàttali li waay oh, ça c'est beau macha allah sunu papa yi Alpha yéeg saala ndaanaan macha allah. dama ne. bu ma toogoon fële rek. waaye jërëjëf ay tonton jërëjëf papa. ngeen way doyoon na sëkk. ndeysaan. suma frère bi ak sama sœur. Pape Cissé. waaw kii nag. ndaanaan la. mooy aw Waly Ballago Seck. macha allah macha allah Fatou Diop. Fatou Diop kële mooy Zal Mbaye. Zal Mbaye suñu frère. nekk paaka ñaari boor. waaw waaw. kii nag. maag moom dañoo def lu bare bari. waay. dañoo ànd wër àdduna bi maa ngi waxaat Pape Cissé di wax yi Ndour borom kër gi naka na veillé ci carrière ñi bu baax a baax Biram Dieng ak ñii dama ne merci beaucoup Sénégal coow li bari na xale yëpp mën nañoo way mais ñii mën nañoo way de ah yàlla seen jàmm yàgg coow ma sa waa jërëjëf jërëjëf sama gaa yi ale amadi Fils. merci beaucoup jërë ngeen jëf. voilà jërëjëf Xaadim Mbaye ndaanaan lu mag a mag a mag sama doy bàyyi jërëjëf. jërëjëf Alpha. merci sama mag yi jërëjëf. merci merci tout le monde merci merci euh, daanaka léegi ñu léegi ñu jeexal mais il nous reste quand même un, dernier hommage. Euh, parce que xam nga mënuñoo bay kenn ci ñu fi bawoo. on va quand même parler de de Charly Ndiaye bassiste Charly Ndiaye est d'abord le témoignage de sa femme. de sa veuve madame diggante bu rafet la mi ngi noonu euh, madame Dione di euh, soxna woon ci Charles mi nga xam ni 2023 la la fi la fi bawoo Yaxya sa naataango la yéen a bokkoon li ngeen di def guitariste waaw mais xam nga Charlie moom mooy euh, base orchestre bi parce que boo ni basse waaw orchestre bi yëpp ci kawam lay nekk ndaxte moo moo ñu am moo ñu daan soutenir parce que musique boo koy def boo amul lu diis loolu ngay dégg ci ginnaaw muy basse dafay nekk musique bu flat du am dara Charles nag moom patriarche la ci bu téye basse bi rek bu la neexee sax nga bàyyi sa loxo bañ def dara lépp dina ko ci dina ko liggéey ci basse bi c'est l'un des excellents bassistes sérieusement pour ne pas dire le des meilleurs franchement et puis dafa d'une simplicité ya xus la may wooye xus yaa dafa renversé sama tur parce que dama koy Charlemagne créateur yow yaa créé école bi te yaa gën a nul ci école yi classe yi <laughs> mu daan jour ni ma xus bu ma fontoo du ma sa moroom c'est un gars sympathique jullite nag boole ci parce que waxu xam nga fii gars yi dañuy ne dafa il s'est converti non dafa dafa dugg ci l'islam rek de manière spontanée hmm. avec avec une croyance fervente hmm. loolu moo moo ko ci dugal hmm. donc euh, vraiment Charlie je peux dire que zéro faute tu sais il y quelque chose que tout à l'heure là bi intervention wu euh, Alpha doon wax à propos de du de pour que wax dëgg yàlla ñu honoré ba sànq rek wax na leen Sénégal ñi ngi seetaan li nga xam ne orchestre bii nga xam ne lan ndam li ñu am ci bitim réew amuñu ko fii ci dëkk bi. ça bi vrai orchestre dañu réussir li nga xam ne aucun président africain ne l'a réussi. muy l'unité parce que ci biir orchestre denga ci gis ay banjaag ay marocain ay ay naar ay béninois ay togolais ay ñooñu ñëpp ñi ngi ci biir ak une compréhension une euh, collaboration excellente bi nga xam ne. kenn ci ñoom y avait un Benjeloun. Euh. ah oui Benjeloun euh, il est marocain. Hmm. pour pour wax la rek à peu près ñun ce que le Baobab a réussi amul benn président bu ko def nañu unité union africaine ak union. du dara taxawul mais bii dafa dañ ko def avec une sincérité ak une clairvoyance bi nga xam ne c'est absolu et c'est total. am na solo. Euh, yàq yàlla te li may métti man Sénégal dañu xamul li ñu am mais bi boo génnee bitim réew boo fekk ñu fa di xam ne orchestre bii du orchestre caaxaan. on a on a vu les images hein? voilà on est même impressionné. egsi nañ nag ci ci njeextalu émission bi di gërëm euh, di gërëm ñëpp. Euh, toutes les équipes ce sont des équipes mais surtout suñu invité yi waa orchestre Baobab euh, Thierno Kouyaté euh, Moussa Sissoko Mountaga Kouyaté Yahya Fall Alpha Dieng ñoo leen représenté ci ci ci plateau bi mais il y a les managers aussi il les jeunes ñoom Alexis ñoom Papino ak ñoom Bolero ñoom ñëpp ñu ngoon fii manager ak Omar Sow te doon leen sànq Badou Bey gros travail gros travail ba Badou Bey. voilà ñu ngi remercier leen bu baax Babacar. waaw surtout Badou Bey Omar sew ak Habib Mbaye le manager de Baobab. Mhm. donc dañuy taxawu groupe bi. ndax ku ne xam na ne ñoom côté administration ñooy def lépp ñun da ngay ñëw rek ñoo la demal dëkk sàngam yaay gée ñoom ñooy préparer dossiers yi ak chef d'orchestre bi xam ne mooy suñu papa Thierno Kouaté. Mhm. du nelaw du yendal. donc ñu ngi leen di ñaanal suñu papa yi ñu gudd fan lool di remercier nag ku mel ni Youssou ci baobab gii mu indiwaat ba ñu mën cee bokk ndax moom dafa tàmm di dugal ci loo xam ne loo xam day dem Youssou dafa bëgg loo xam ne dafay dem lu am njëriñ daf ci bëgg di participer di dugg na ci baobab pour mu ñëwaat sur la scène musicale bi ki des mooy njabootu alaaji njuga ñu ngi ci ay loxoom maa ngi koy gërëm au nom de toute la famille maar Dieng mu ngi TFM lee mu def fi 10 moom moo Dieng mu ngi Prince Art bi Alaaji Ndiouga yi dund Youssou Ndour ci loxo ala euh, njabootam bi mu génne àdduna Youssou Ndour bàyyiwul njabootu Alaaji Ndiouga maa ngi ñaan ñu tàcc ko ku am colère bi ki des man maay président wu xale yi mujjee ñëw ndax man maay seen taaw <laughs> mafia bi laa leen tuddee ay xale yu yaru neex àndal xam nga nit bala ngay xam jikkoom da ngeen di seq ñett mm. tukki ci la bokk waaye jaaxaluñ ni benn yoon Papino Kouyaté René Bolero Wilfried ak Malick Sy mhm. maa maa ne seen diggante ak paa yi mhm. di gërëm nag Modou Faye Mousli Couture moo ma sañsel xam naa paay yi dañ wax ñi leen sañsel nag ndax day am ñu jàpp ci combat bi Modou Faye maa ngi koy gërëm bu baax c'est l'homme des grands événements waaw jërëjëf sama yaay di ko ñaanal mu yàgg fi ak yaay yëpp nag amin yàlla guddal seen fan macha allah bàyyi leen ak ñun ba ci kanam kanam mais baabaab lekk ñu bàyyi kenn bu ñu génnee suñu kase ni muy demee noonu la kase yi ci kër veuve yëpp nag foog naa wax nañ ko mais foog ma waxaat ko lu ñu lu ñu tournée bu ñu dem dañuy am génne paaru veuve yi kon orchestre bu mel ni mën na gudd fan yal na yàlla def jàmm ci réew mi. amiin maanaam euh, euh, lu ngeen di liggéey jamono ji da koy bokk. ñi bokkoon ci yéen te bawoo fi ngeen ni jël xaalis di jox seen njaboot kenn ku ne xaalis day dem sa kër ba keroog bi Pape Thierno Ndiaye génn àdduna dafa ñu fekk ñu nekk tournée dañu wàccee rek Berlin ci euh, aéroport bi rek message bi ñëw ñun ñëpp ñu toog jaaxle kenn xamatul nooy def suñu loxo yi damm Pape Thierno toog ñu gise ñu la ñuy def dans un premier temps mu ne nañ yónnee xaalis Sénégal yónnee xaalis sarax si ñu defaat noonu hmm. loolu mooy baobab famille kenn demul rek ñu fàtte la bàyyi la te ñoom jikko yooyu ñoom ñoo ko sàmmaa ah. kon nañ ñii yàlla yàlla guddal loolu dafa jar a wax ci kanamu sénégalais yépp orchestre bi dafa nekk famille boo xam ne du tas xaalis day dem kër Pape Issa Sokho sama yaay sama tante Aïcha Fatou Diagne ñoom ñetti ñëpp dañuy jot xaalis ci télé laay waxee loolu mooy kóllëre te Youssou Ndour mii ci la nekk ndax kër gi boo demee TFM yaa ngi koy fekk ay doom yi marqué Samb ak ay doomi kóllëre Youssou Ndour loolu mooy àdduna kon nag Babacar émission bi am na am na solo. waxal nga ñëpp ñu ñu ngi lay gërëm bu baax. waa di ñaanal ñu gudd fan rek dinañ fi yàgg rek. Babacar faal yàlla defal la jàmb defal ko kër gi. amiin waaw. waaw parce que Babacar ñun suñu soppee la. chaque matin man yow foog ma déglu la. ba pare doo tëdd <laughs> mais léeg-léeg nga tàngal mais ma ne non xaaral xaaral saa bon bu loolu weesoo. dañ fi am aussi ay doomu ndey yoo xam ne suñu ay xarit yoo xam ne dañu yàgg ànd ak ñoom compagnonnage bi dafa yàgg. muy man Jóob bi toog nale ak Matar Thiam bi toog nale depuis suñu ñoo xalandoo daal ba ni ñu yegg see fii tey ñoom toujours ñu ngi suñu ginnaaw boole kook aussi tous les gens yi nga xam ne parce que am na période yoo xam ne ay période de crise yoo xam ne dafa am ay nit bon ñoo du ñu bëgg sax tudd mhm. mais ñoom xam nañ seen bopp dañ ñu daan jàppale parce que dañ daan dem studio di def ay enregistrement ñu ñuy jàppale xam li la di ñu di ñu di ñu bu ñu jouer aussi ñu ñëw ah def seen kéemtulaay kattan ñooñu tamit ku lim juum ñu ngi leen di remercier di remercier aussi suñu doom yi nga xam ne ñoom it aussi dañu déggal parce que beaucoup de groupes dinañ génn fii mu am ay yu daw mais ñun saa yu ñu demee kenn du manqué saa yu ñu demee tuuti xale yi ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu ñoom ñëpp nag vraiment quoi coono bi ci am dañ koy supporter problème yi ci am dañ koy supporter ñooy ànd ñooy àndandoo ñooy ñibbisindoo waaw donc loolu ñun dinañ leen félicité xale yi nii yow alfa yow yaa ko wax sànq yow xam nga léegi yow suñu doom nga mais moom dafa bokk ci ñuy jël décision. Hmm. waaw day bokk ci ñuy jëf décision duñ def dara sans ndax baayam lañ ko xoolee Ndiouga Dieng moom à l'époque moom moo doon trésorier wu. groupe bi hmm, hmm, Thierno nekk son second. Thierno moo doon secrétaire. jërëjëf waaw jërëjëf Mountaga. vraiment ñu ngi remercier ñi fi toog ñëpp. papis aussi Pape Cissé moom it aussi dox na ci ba sonn vraiment dox na ci ba sonn ñu ngi koy féliciter di ko remercier di remercier tamit suñu mbokk musiciens yi nga xam ne vraiment dañu ñu bëggal man jooyloo nañ ma sax waaw maa ngi leen di ñaanal yéen it gudd fan ak yàlla ngeen yegg foo leen foo leen bëgg yegg yàlla na ngeen fa yegg Yaxya 30 euh, euh, secondes ça veut dire tout simplement hmm? Fall Ndiaga <laughs> ni man j'ai un ami bon xam naa ne sa su koo waxee da day safee riir il s'appelle Gadio suñu xarit la suñu xarit la ñun ñëpp Cheikh Tidiane Gadio c'est l'ami des artistes de manière générale mm-hmm. mais c'est mon ami moi personnel parce que quand il beaucoup plus jeune que moi aussi j'étais beaucoup plus jeune quand j'allais dama ma daan def école di jàngi damay jël guitare di jouer mm-hmm. ndeke mi ngi sama gi topp topp ma di déglu parce qu'il habitait Waagu Ñaay moi j'habitais Bopp dafa am benn bés mu posé ma question ne ma Yaxya un Fall plus un Fall égale quoi <laughs> ma ne ko égale deux Fall mu ne ma c'est des faux <laughs> euh, Thierno ñu tëj ak yow euh, avant si Moussa waaw après euh, Pape Cissé mais Ndiaga Ndour parce que bi ma wooyee vraiment dañuy waxtaan malgré suñu yenn kii ñu am yëpp manque de temps avec tout mais ñu waxtaan juboo déggoo. Hmm. donc ñu koy remercier aussi quoi. jërëjëf Thierno Moussa le dernier mot pour toi. Euh, ah, di gërëm ñëpp rek kontaan nañu trop vraiment ci teewaay bi. di sant yàlla rek yàlla yokk xéewali rek voilà. merci à tous. on termine cette émission Café Musique avec euh, euh, des sons de l'orchestre Baobab et joué toujours par l'African Stars Orchestra. Euh, le dernier qu'on va faire les gars euh, c'est c'est Papa Ndiaye Thione Seck wayoon ko biir orchestre Baobab jërë ngeen jëf koy wax capi batterie bu ma demee clavier Ibou Dieng Sala fële deuxième clavier Jean Mermoz saxophone Alain Oyono Zal Mbaye chant Fatou suñu doom suñu xarit chant Birame Dieng Sala chant waaw ki nga xam ne nag moo yor section bi nag arrangement yooyu affaire di sama doom di sama xarit muy Amady moo yore guitare gi. ci fii ma jógee foofu percussion mu naan it sabar mbëmbëng cool xiin. Khadim Mbaye waaw jaajëf Khadim ah Touba nag xarit jiite leen Jow Masayer Mbaye kooku mooy góoru ndey kenn Mbaye Ndiaga Mbaye baayu Adama Mbaye ee jërë bax bax bax dee ko bax bax bax baxee mooy bax bax Fatou Diop lii di cukri cukri sëriñ Ndiaye sëriñ Ndiaye morceau merci